ak sëñ Fall ñu ngi lay nuyu di nuyu ñi ñuy teewlu ci Rafah TV yëpp nuyu sëñ Mourtala waaye di tàmbalee nuyoo bi ci eh, xalif général di Mouride Cheikh Mahamadou Mountakha sunu kilifa yal na fi yàgg lool te ànd ak wér. di nuyu nuyu bu baax ak siyaare sëriñ Abul Baraka xalifa Cheikh Mahamadou Fadal waaye di siyaare sama sëriñ eh, Cheikh Mahamadou Mourtada siyaare sëti sëñ Fall yëpp. waaw comme ni nga ko kiiyee daara ji mooy kër sëñ gi ci daarul man naan ñu koy gën koo xam ci kër sëñ Fall euh, daara ju yàgg la nag daara ju cosaanu la ndax euh, mille mille neuf cent un bi sëñ bi nekkee ci géej gi la digaloon maam Thierno mu sañ ci fi toxal fi njaboot gi euh, bi mu ñibbisee ci géej gi tamit bañ wax ko mu dellu ci njabootam bi mu jógee Daaru Salaam fii la jubal si ci ndax fii la njaboot gi ne woon fii mooy këram gi ma amoon ci ginnaaw géej gi daal fii la dëkkoon euh, mën naa ne it lim def ci ginnaaw géej gi yëpp ci coobareem fii la ko defe euh, barab bu cosaanoo la kon euh, barab bi it ba mu demee ba nga xam ne raafu na Cheikh Mahamadul Fadal moo ko dekkalaat génnewaat néegi bu ci nekk ne gas leen fii gas leen fii buñ gasee gis fa jeexit di mu dekkalaat ko ba melaat na meloon euh, sëñ Modou Bousso Dieng euh, bi mu ñëwee euh, yeesalaat ko néeg yooye mu def ko tabax miire ko ba mu daj ci la dagg kees gi ngay séen def ko daara yoo xam ne moom lu yàgg-yàgg nay doon daara rek daara ji it jaar na ci jaarwaay yu bari waaye cib tënk rek bi mu egsee ba ndigal li egsi ci sëti Sëñ Fallu wi Euh, ñu yor ko di ko doxal boobaak léegi ba mu duggee ci seen loxo léegi amul benn bis bu ñu xëyagun te nit jàngu fi alxuraan euh, jéeguy tey yi nag ab continuité la ci loola rek dañoo dem ba gis ne euh, fi jamono toll ak barab bi ni mu ni mu selleeg ni mu cosaanoo am na yéene yu bari yuñ ci am yoo xam ne ñëw toog fi yoral ko sa bopp rek Euh, te ñaan yàlla defal la ci ndimbal xëy na moo moo lay dimbale ci loola ñu ma waxtaan ceeg euh, samay kilifa jaare ko ci sëñ Moustapha sëñ Basiru monsieur Mamadou Fadal mi nga xam ne ki fi nekkoon ci ndigalam la fi neewoon euh, mën naa ne ñu fi nekk sax ci ndigalam lañ fi nekk ñëpp bi ñu xamee sama yéene xam ne daanaka 2017 ba léegi maa ngi ciy doxi jéego ci lu ko ci lu ko yëkkatiwaat maanaam lu ko jox dayo bi mu amee ci lañ ma sase sasu rëy wii nag eh, ngir ma doxal ko dama ànd ci yéene ak pas-pas bu rëy nag eh, bis bii nag li tax ñu taamu ko ci ndax fi mu ne boo xoolee sax boo bu boo gisee gis nga ne daanaka juróom-ñeenti néeg mi ngi fi te ñett yi lañ lañ defaragul eh, yeesalaat ko ba tëj ko nii xam nga ne kon noppeeguñ xaajalaguñ sax mbaar mii ñuy jàngee rek gis nga des na ab ab lu baree bari ab defaraat buntu kër geeg yu baree bari waaye dañ doon xool bis bi nga xam ne sëñ bi ñëw na ko ci kër gi bi mu jógee Daaru Salaam muy ñaar fukki fan yi ak juróom-ñeent ñu ne kon bis boobu duñu rëcc mooy bisu tay bi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru kori moo tombeek àllarbay tay ji ñu ne nañ ci dugg rek tàmbali njàng mi euh, ñaari gone yi nga gis ma ma ma ma tàmbulee leen ci bis bi euh, euh, gone yuñ ma euh, gone yuñ ma joxoon la waaye dama ko tànn kii kenn ki daam la tudd kenn ki Sëñ Fall ngir li ma la wax léegi ci histoire kër gi jóge ci Sëñ ñëw ñëw ci loxo yi Cheikh Mahamadou Fadal loolu yi taxaat ma ma tànnaat daara ji bi ma ci waxtaanee ak ñi ma ci war a waxtaanee yëpp ñu tànnal ko aw tur waaye booba dañ dañ koo tudd rek baytul xadim waaw baytul xadim euh, manees na koo firee kër Sëñ Tuubaa rek doonte ñi jàng arab nag mën nañ laa wax baytu gi man mën naa am yeneen tur maanaam kër mën naa am yeneen tur yu gën a neex waaye dañ cee jublu rek barkeeloo ci bayit bi Sëñ bindoon te binde ko ci kër gi yaqini ilal jannaati maa laysa yuhmadu rasulun karimun baytana zaara ahmadu te loolu defe naa gàmm gi mu defoon gàmm gi mu defoon ginnaaw géej gi gàmm gu xum googu mu defee woon ko ci kër gi te waxoon na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ñëw na ci kër gi euh, bayit woowu lañ rek jukki ko barkeeloo ci ci baytul xadim googu euh, sëti Sëñ Fallu yi nag euh, ni ni ma la ko waxee léegi lii day beneen jéego boo xam ne dañ koo defaat rek ndax boo fàttali ko Euh, ci ndigalul suñ abul baraka ginnaaw bu mu nekkee ci jumaay pàdduwaa ji ba nga xam ne euh, ku fa dem gis nga euh, jéego yu rëy rëy yam fa def ak yiñ fay waaj yëpp mu joxoon ndigal sët yi tamit ñu taxawal ab jàngukaay bu mag buy jàngale xam-xam ca ndindi kër Sëriñ Fallu ko ca ndindi ba fii may wax yow tey jii ku fa dem gis gone ñu jàng ku bëgg a jàng boo àggee jàng nañ fa ab jàngkat mu jox sëti Sëñ Fall yu ndigal tamit ci téere bi ñu doon bind ci histoire Sëñ fal tudde ko xadaayiqul fadaayil te def cay jëf ju rëy rëy joxe ci ndigal yu bëree bëri ba jëf jooja mën a sotti ñu def ko téere bu rëy ba fii may waxe yow sët yaa ci di ko traduire ci yeneen làkk yi fi mu ne nii ñu ngi ci procès boobu ba yaakaar naa li ci des bëriwut mu jox ndigal tamit sëddi ñu taxawal nag jàngukaay bu mag a mag boo xam ne institut bu mag lay doon ci Ndindi ba eh, yaakaar naa ku nekk ci réseaux sociaux yi gisoon nga procès boobu tàmbali nañ ko ba bâtiment ya kuule moo ca des ba ña collectire collecter miir ba fi mu ne nii kon eh, eh, damay profité ci lool sax di lancer waale appel képp koo xam ne ku bëgg lu baax la wala muy sëtub Sëñ Fallu wala muy soppeeb Sëñ Fallu mu jokkoog Sëñ Murtala moom Sëñ Abdul Fatah wala Sëñ Xaadim Sëñ Abdul Karim jàpp ci liggéey ba bu baax a baax a baax def ci jom mu mu egg ci dali bu baax bi bi biñ taamu ndax projet bu mag la yaakaar naa téeméeri million ak ak ñaar fukk mat na ko ci li koy li koy defar fi mu góor góorgóorlu nañ ca ci ñi sun sun suñuy kilifa suñuy mag ñuy jiitu ba bâtiment ba fi mu ne kuule doo nga ci des ba fi mu ne nii may wax ak yow euh, euh, démb wala bërki démb mason baa nga fa di di collecter kon yaakaar naa jéego yooyu nag seeti Sëriñ Fall yi doon dox boobu ak léegi ci li ma lim nii lii day ñëw dolliku ci loola rek mooy yeesalaat barab bi euh, yeesalaat njàng mi waaye indi fi kenn ci ñun mu yor njàng ma feeñal ci yéeneem di ñaan suñu borom def ko mu barkeel ñoo ngi jégalu bu baax a baax baax ci kàddu gi euh, loolu rek moo waraloon ñu tàmmu bis bi loolu moo waraloon tamit ñu tàmmu tur woowu loolu moo waraloon tamit. ñu nàmmaat suñuy pas-pas jàppe ko ak tuub suñu digganteeg suñu boroom rek ak sóobu tamit ci suñ digganteek sëriñ bi sàkku ngërëmam ci barab bi te am nañ ci yaakaar lool barab bi histoire yi ngay dégg yëpp ci sëriñ bi ci ginnaaw ginnaaw géej gi ci kër gii la amee woon kon barab bu yaakaaru la ci tàmbali barab bu yaakaaru bu bu bu pas-pasu la it buñ mën a dàkkee ngërëmal sëriñ bi jërëjëf jërëjëf